benn doomu aadama moo ñu intéressé ci Sénégal c'est le président Ousmane Sonko te dànkaafu nañu Macky Sall moom dégg na ay nitam dégg na Insha allahu rabbi para nañu loo xam bu sobe yalla bu Macky Sall ñëwee ba ñun ñu ak mom Amérique bu boba dinañu wax kan moko falon ak kan moko mom Sénégal ndax mom moko mom wala ñun ñoko mom voilà ñun lolo ñu intéressé

donc nag nit ku masta gañ ay bu buñ ko tuddee si ay élection bu ko kenn tudd dimbali leen ni ngir yàlla rek patriotes yi seen gémmiñ dafa barkeel bàyyi leen dof bu gaa yi tudd yépp ngeen ñëw tuddal ko seen bopp sant leen yàlla yéen a mag ki tànnal mu tànnal leen ci gën a cuune ki mag ki masta gañe benn élection ci àddina benn élection waa ji ma su koo gañe donc kooku c'est pas à nous di may bay rek parce que ñun suñu gémmiñ dafa barkel bu leen tuddu tur de ku fi bindé ab tur na la bloqué ku fi tuddu ab tur danaa la bloqué fi tour Ousmane Sonko lañ fi tuddu kep voilà mi ngi mel ni ñu né concours jang alcorane ngeen dem tan ko xamné manul tari fatiha kooku xam nga man mënta gañ ay concours alcorane donc tay ñun sénégalais yi benn benn nit mo ñu intéressé ci sénégal koku c'est le président Ousmane Sonko yi ci des yëpp bu leen leen tudd saay nit koo xam ne masta gagné élection quartier masta gagné election, département kooku boo ko joxee élection maanaam présidentielle bu Sénégal fu mu koy gagné donc bu leen leen may bal rek ngir yàlla rek dimbal leen ma ngir yàlla rek doo leen leen bàyyi ñuy continuer sol seen ay pantalon yu yëmbax ak seen ay semis yu yëmbax di am ay patrimoine cent milliards bu heure bi jotee lañ ci wara a da danañ ko ci wax wallahi jàppale nañu rek bu ñu kenn sonal vraiment ci suba bare ne yeg na ki ñu tan waaw yeg na ki ñu tan moy que masta gagné ben élection masta gagné quartier masta gagné élection ndom masta gagné keneen wala yow xaaral ma Eliman Eliman xaaral ma yow bolaka la yow Eliman wala waxon na na legi ne dina la bolaka wala Eli wala Eli suspend voilà suspendre naa voilà yow bloqué naa la jeex na nee naa leen bu ci ben doomu adama tuddu ab tour nit ku tekkiwul dara bu ko fi ben adama tudd voilà bu len ko fi tudd ne la nommez pas ici bu len ko fi tudd Ousmane Sonko lañu wax ñun ñom yalla mo nek di len déstabiliser bay leen leen ñu rey seen ak ki tuddu benen tour bi tamit Aliou Diallo bàyyil yow it ma bloqué xaaral ma bloqué Aliou Diallo ni tuddu tour yépp danaa la bloqué salam voilà ben voilà dama dige dige borna ku fi dugg rek tuddu tour bobu ma bloqué parce que il faut tamit ñu am raison garder il faut ñen xamné suñu gemmi yi dañu dañu barkel suñu gemmi yi dañu barkel suñu gemmi yi dañu barkel du ku nek lañu wara tuddu Dedet. Dedet. des vauriens qui ne peuvent même pas gagner leur quartier là où ils habitent boo leen leen tuddee da ngeen di may barke voilà am patrimoine bu duufa duufa duufa duufa douf. bu waxtu bi jotee dinañ ko wax ndax mënuloo sàcc suñu ay milliards ay milliards yi milliards yi milliards nga ñëw di ko partager ay nit pour yow ñoo ñëw après di wotel ci ay élection man ta nek Il vol nos milliards où tu dit reçu ces milliards ay patrimoine milliards yu bare bare bare bare la am loolu xam nañ mais biñ ko tudd li important que ma veux que le Sénégalais le président Ousmane Sonko est toujours séquestré loolu la ko tout le emprisonné injustement par Macky Sall et la diaspora est invitée celle de l'Europe

tout cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire quitter Macky Sall ce pouvoir. le Sénégalais yi yéen ñëpp ngi tous les permis sont faits permis yëpp am nañ tous les préparations sont faites le lu ñu et d'oeufs def def nañ ko ba pare rabbi yann la ñuy pour gagner focus ni. Ousmane Sonko la le focus. c'est Ousmane Sonko bu leen may xorom maa ngi leen di ñaan bu leen leen may xorom parce que yéen ñëpp doole bi ngeen am tey jël leen photo ay photo wu Ousmane Sonko ngeen profilé ko ñu sonkoriser le Sénégal en en le démaquillant on n'a qu'à sonkoriser le Sénégal en le démaquillant mais. il na faut pas ñu tudd ay turu nit yu tekkiwul dara di leen may bayre ñoom tànn nañ seen candidat ñun buñ ko tudd ñu xool ñaata bayre lay am ne ne dites pas le nom bu leen tudd seen candidat bu leen ko posté bu leen ko waxtaane ñu xam niñ ko ñàkkalee xorom parce que sondage la xam nga ñoom tànn nañ seen candidat ñun bu ñu tuddul candidat bi faalewuñu ko kenn faalewu ko réseau bi yëngatuwul kenn lijjantiwu ko xam nga lan mooy xew ñoom ci seen bop dinañu xamné ne nañu ay élection laataa élection yi di tàmbali bu len ko tuddu ne dites pas son nom bu len ko tuddu ne le partagez pas ne parlez pas de lui bu len wax ci mom bu len ko partager bu len ko laal bu len ko tuddu bu len ko falé non parce que boo len ko tuddul le problème qu'ils auront ils sauront que ndaysan waa ji ndeke kenn xoromalu kenn xoromalu man leen ni sa la lañu tànn candidat présidentiel sa Sanekh parce que ñom ils sont dans des théâtres parce que ay nit yo xam ñom xamnañu xam ne ki ñu tànn masul gagner quartier kooku lutax ngeen koy tudd ne parlez pas de lui yéen ñep profil len Sonko yéen ñep wax len ci président Ousmane Sonko parlons le président Ousmane Sonko, ne parlons pas des personnes. Euh, Papa Ibrahim, Rousna sinon j'allais te bloquer. Voilà. Ok Voilà. Je vais effacer Je vais vous dimbali suspendre parce que peut-être que je vais wax, mais effacer ce commentaire. Ok Voilà. Nous Ousmane Sonko sommes tous

bu ko benn doomu aadama tudd le gars a un patrimoine 2 milliards bu mu sàcc donc télé Sénégal yëpp dina am lu mu leen jox voilà bu ko kenn tudd nag kenn nag bu ko kenn tudd bu ma ko benn doomu aadama tuddal dimbali leen di rek fi mu toll nii tuddal leen la marche bi New York bi nga xam ne Macky Sall bu ñëwee Amérique te Ousmane Sonko ci kase Sénégal yi nañu fexe moom mu nekk ci kaso fii na am vie bu gën a misérable ba mu masta am bi mu juddoo ak ci ndeyam ak baayam ba léegi loolu moo ñu intéresse nous on est prêt on attend Macky Sall aux États-Unis aéroport lañ koy gàttandoo ba ci hôtelam di ko gungee ci dëkk bi di dal ci kawam di ko gungee ci Amérique di dal ci kawam gungee ko Nations Unies dal ci kawam siiwal ko ba àdduna bi yëpp xam genre talenkaan bi mu doon c'est tout Ousseynou maa ngi lay bloqué yow defe naa li nga nekk yaa ko tey yooyu kenn du ko tudd fii voilà dañ fi tudd ay tur on ne parle pas des délinquants ici voilà kii ma kii dama koy effacer rek dama lay effacer yow voilà delete quand même du ma la voilà

yow doo tëj kenn billaay wallaay dinañu tëj kenn gis nga fii du Sénégal de nit duñu marche ay nit duñu protester ay nit duñu wax seen président bu fi ñëwee bii yoon dina gis lu mu mës te gis bi ko yàlla sakkee ak léegi man maa la promettre loolu Macky Sall bu fi ñëwee bu ñibbee Sénégal bi yoon dafay xaru dafay jël comprimé ci avion ma lay xaroo loolu ñun mën nañ leen ko garantir dinañ leen humilier humiliation boo xam ne ba ngeen juddoo ba léegi mosu leen ko gis à bu hier kayz a fait un très bon travail machallah c'est son devoir voilà Kayz-Fof moom daanaka moom bon travail la dëkk voilà ñoom ñëpp nag tous les patriotes ils font un travail extraordinaire kenn ku nekk il le fait de sa façon kenn ku nekk voilà kenn ku nekk li mu a def koy de sa façon. ñun Ousmane Sonko mooy suñu candidat Ousmane Sonko moo ñu intéressé ay waxu Ousmane Sonko la ñuy wax ñii nga xam ne dañoo luubal alalu réew mi yaakaar na Nous sommes nañu mën a yoraat réew mi ñu ngi leen di xaar amul problème seen heure jotagul waaye fi mu ne nii ba Macky Sall di ñëw Amérique ba di ñibbi Sénégal te du ñibbi ci jàmm ak terrorisme bi nga terrorisé bi nga xam ne lañ koy terrorisé fii ci Amérique ñun ñu ngi réserver loolu incha allahu rabbi ka nga xam ne moom mooy la président Ousmane Sonko bu soobee yow waaw président Ousmane Sonko rek mooy suñu candidat moom moo ñu intéressé moom moo intéressé sénégalais yi nañu dem ñu sonkoriser bépp place boo xam ne Macky Sall dina fa jaar wala ñoñoom en démaquillant Macky Sall nous sonkorisons le Sénégal a le démaquillant dañuy sonkoriser Sénégal waaye dañ koy démaquiller incha allahu rabbi yéen sénégalais concentré wu leen focus focus sur le président Ousmane Sonko képp yeneen yi yëpp intéressé wu xam ngeen dëkk bi ñun on est des sénégalais lii suñu wax ji xarit bi wax démb Clédor seen te ñu dégg ko te àdduna bi yëpp dégg ko ñun xam nañu ko. passé au Sénégal on sait se passe chez xam nañu liñ fa war a def xam nañu liñ fa war def on sait ce que faire chez moo ñu beneen doomu aadama ak ay caaxaanam intéressé wu du ñu wax ci kenn yéen a tànn seen candidat publicité leen ko wax leen ci moom ñun benn sénégalais incha rabbi moo ñu intéressé when the Senegalese president will arrive in New York. Macky Sall will be in New York from the 17th. We're going to start our fight. ñoom xam between the 18th and the 21st lay your mom. but we're going to start our fight on the 17th the 18th the 19th the 20th and the 21st the two days that we have that are highlighted is the 18th and the 19th and we will start the protest at 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon dañuy yendu voilà 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon we're going to make this country very very very miserable for Makisal, Inshallah. incha allahu rabbi donc ñuy ñaan doomu sénégalais yéen en masse voilà

ñun dañu doon que ci Macky Sall Macky Sall bi muy ñëw présidence xam nga daf ñu Abdoulaye 7 milliards ki Macky Sall na plus de 100 milliards de francs il a un patrimoine de plus de 100 milliards en fonctionnaire d'État temps. xam ngeen ne ñun duñ ko suñu donc tout temps buñ ci ci a def